France Tata Elisa Tata Tata Elisa Seydina Tans Tandian taalibe sëñ Saliou xam nga moom réussite mooy intérêt personnel am na terrain géej compte banque Cheikh Yérim fees na doomu xaram ji pareil e même chose la def golo gongu ndeyam ji même sos la def moom nee na boo réussir réussir ci lan ci alalu jàmbur yi ña nga xam ne ñoom nga waroon a bokkal alal ji bokkandoog ñoom nga pare seppi leen ba ñu set jàppe leen ay mbaam te fekk yow yaa ngi dëkk ci puusum puub de lesbienne bi bu góor bi parce que ñun dañoo am ay bàjjen yu góor lesbienne bu góor bi moo te murit yi te tiijaan yi te laayeen yi te ñaaseen kii moo taxaw biir assemblée wànq suñu kaw ñun ñëpp ñu fi nekkoon bu yàgg ba suñu sëriñ yu yàgg mais mais pratiquement xanaa ko ñu fi nekk ñoo ñoo mais c'est pas ça moi je le dis je le réclame Dès que y yow vous nga eu nga wala vous avez eu nga wala vous avez mais avez eu la nga Vous avez leçons ngay eu gis ne vous avez comme ça pas darc en ciel arc-en-ciel le asamaan la avez eu le vous le moi je comprends plus deuxièmement mais arc-en-ciel bi mais Afrique Sud Mandela drapeau de arc-en-ciel mais Bob Marley gis naa ay seer yu kaw ñu mel ne ay France ñu ne ay Dër la Jantak sur le le le le bonnet de Marley mais ça c' est le rainbow alors il faut gars yi ba dara mais bu dee loolu kay bu ñuy sore mais ñu nekk si fii rek di xeesal takk ay seen dugal fii seen benn bokkal fii. yow yaa toj sa cott ndey yow bokkal yi sax xam nga ko doomu xaram ji Djibril War yow yaay doomu xaram Djibril War fekk ko biir assemblée rek gàddu marto rek ak ndelam bu leer bi katt ci ndeyam ba ndey ba marto bi pëtëx ci biir ndel bi kii doomu xaram pire gi nii do mu wengal ngemb bu deug deug deug deug xawma mbokk adam apa? mbokk adam mustafa xawma adam mustafa momu ma bloqué léegi xawma ma mbokkam la wala do mu kharam yi ñoo ne ci rew mi nee nañ dañu wara kat xar kat bey kat yaay kat dom kat mak kat rak kat tef kat cumburu mbam kat xar kat golo kat golo gong kat fas kat lu neñu kat doomu kharam yi ñom neenañ dal nañ carte badia seen imam taxaw ne ñun xar yeeg béy yeeg mbaam yi léegi buñ ci lekkati bu ñu jaaxlee ba jaaxlee l'islam daganal na nga dagg sa pooju morom sidit yaag deret ya naan tuy ñoom l'islam gi waxul ci deret gi dara da ngay seet li demoon na ci réew jibril war mi moom la imam yi mënta def yi bay dagg suñu pooj yi pour lekk di ko daganal kat teg ko ci l'islam daganal njaaloo teg ci l'islam mais da ngay seet li da ngay seetli da ngay seetli kenn mënu koo wax kon nag l'assemblée baa ngi nii kaa ñu dem déglu ji président nañ déglu ceddo murit ba pare. parce que da ngeen andi ay fait yu kenn mënta weddi parce que Karim day wax ni man lii laa gis. ak lii ak lii ak lii. li gën a jafe ci sunu émission yi ma di ko jooy mooy chiffre yu baax. ay chiffres yu baax nga indi. cest bi nga tuddee rëbës par exemple. da nga indi quatre fois. la population pénale bi waroon nek nekk foofu. ndax remarqué nga lolu c'est une surpopulation. Mhm. quatre fois là. donc et puis lo indi nga problème surpopulation. Mhm. ak condition de détention mhm. xam nga wax nañ du ñu tabax kasso xam nga sénégalais yi ñu leen di jox aussi la bonne information. d'abord li ñuy jëkka joy moy la séparation des pouvoirs ku leen ko wax rek xamal ne mi ngi leen di nàmpal meew moo xam ne xamu leen ful <laughs> Mhm. elle n'existe pas. Première chose, l'exécutif. président Macky Sall nommé magistrat Il y a salaire. Il a jox yu terrain yu barab Il pour ñu séparation. xaw ma ko assemblée nationale. déontologie. non c'est comme ça que ça marche en fait il faut qu'on dise au Sénégalais ce qui se passe réellement. assemblée nationale. Uh-huh député bu fi da nan man ci pencum ndaw réew mi laa toog ban pencum ndaw réew mi fan la assemblée juddoo est-ce que sénégalais xam nañ la première assemblée est née après la bataille de Bouvines en 1215 en Angleterre ay nit yo xamné dañu am doolé ay commerçants ay hommes d'affaires ño dajalo taj Jean sans Terre le roi d'Angleterre le dernier fils Plantagenet ne ko da nga xeexi won ñak fi ngay jëlee xaalis léegi ñun rek ñoo ci sës léegi nag ni ñuy def mooy lépp looy dogalati da nga ci waxtaan ak ñun bañ juboo mm-hmm. actuellement ba fii may wax ak yow nii ci la assemblée juddoo ba fii may wax ak yow ces gens habitent à la city de Londres su fa reine d'Angleterre bëggee dem day demander autorisation au maire de la city am nañ fa actuellement benn député boo xam ne mës na xuloog premier ministre Angleterre na ko naa la won ne maa yor réew mi assemblée bii du pencum ndaw réew mi. bu fa Macky sàll tey bu bindoon projet loi pour mbéj nit comme daje rek mbéj la mais projet de loi boobu du jàll. day jàll léegi voilà kon nag nañ bàyyi loolu. te te ko ci suuf. Mhm. li ci topp mooy li ñuy wax naan duñ fi tabax kaso. mais est-ce que yéen yàgg ngeen dégg ñu ne benn régime du fi tabax kaso ndax nee nañ. ku ko fi jëkk a tabax yaa fay jëkk a dugg. gëm nañ ko ñoom loolu lañ ñu que duñ tabax kaso. mais dañ ko waxal Mamadou Dia. voilà loolu la ñu waxal bi ci toog moo tax moo mooy nit ki ban processus lay topp ba dem kaso. Mhm. sëriñ bi sénégalais yi ak homme de tenue yi y'a problème. Mhm. condition yi ñuy arrêté nit. xam nga man damaa yàgg seetaan fii vous avez le droit la ngay njëkk a dégg vous avez le droit. de garder le silence mais gis nga bés bu ñu la jiiñee dara premier droit bi ngay perte. Moi, c'est ce droit même de garder le silence ce droit d'avoir un droit dans quoi il perte ñaata nit sous la coup des tortures nous fi avouer lo xam ne défendu wallahi ya ko un sàccuma mako mbéj mi dal mais ñuy Mais il y ne andi len kayit ñu andi nga signé ne ma def bëgg a un ndax bëgg a mais tant que ci réew surpopulation pénale bi du fi parce que nit nak amna droit ne man liñ ma jiiñ defu mako waji di wax ak yow ak respect

baat bi diis na lool mën naa wax waaye ceddo daa dëgguut la ngol-ngol di bañ moom la ñuy wax ceddo mag bu naafiq nga parce que yow malgré nga xam lii yépp ñu war a taxaw xeex lii ceddo nga dem aali nguy njaay jiite na timis bam la joxee ba tey ceddo nga ne muut man li ma ci yow mooy maa ngi partage sa vidéo ni nag maa ngi koy jàllale mais daf ma leer ne say pos rës affaire bi nak ci ñun la dess mom la mom la bind ni si ñun la dess ñu fokati suñu assemblée si ñun la dess parce que wax ji dafa bari yag ci do man xaram ma jëlee fi mi ngi ni bu ma paré nak doog dem jëli mu sel ni euh fim nek ni Saliou lay dafa jeex lay amatul li gars di wax la balle est dans notre camp fofu lañu tollu lay amatul benn lu ñuy layyi amatul ñun amatul lu ñuy layyi ñun ñoo doon wax assemblée nationale gars yi dañu bañ a voté loi góor jigéen bi actuellement nag vote bi si suñu loxo la nekk yàlla randal naka ba suñuy loxo ndax ñun ñooy tànn député yi nga xam ne ñoo war a voté loi boobu ñun ñoo war a tànn député yi nga xam ne ñoo ñu war a defal li ñu bëgg kon ñun jot na pour ñu sanctionner léegi bal bi tourné na si ñun Nous, ñoo bëggoon ñu voté ñu loi nous ñu dem foofu ñu jël loi bi sànni ca mbalit ma ñu ko voté actuellement nag ñun ñooy voté loi bi nan la ñuy voté loi bi ñun ñu ñi nga ne am nañu yaakaar ni ëllëg daan taxaw loi c'est très simple léegi nag suñ ko ba am majorité ensemble nationale bu kenn de kenn benn député naan ko moo wala loi bi wala nangam ñun la ñun ñooy yi ñun parce que tey jii ñun ñooy tànn député yiy dem foofu kon nan leen ko wan fii nan leen wan ñoom ñëpp que ni ñun bëgguñu loi dañu bëgguñu ñu voter loi góor jigéen bi criminaliser ko nan leen leen koy wane mooy si suñuy vote bis bu leen ko wanoon suñuy vote bu ñuy waxati wax góor jigéen ñun noon téye suñu làmmiñ xam ne ñun ñëpp ay complice lañ si nan waxante dëgg te ñuy fexe comprendre Macky Sall bus bu nee ma wax leen Macky Sall xam na fi muy jaar sénégalais yi mais sénégalais yi xamaguñu fi ñuy jaar Macky Sall actuellement nag yéen tollu ngeen si toll nañ ci position boo xamante ni ñun war nañu xam fu nuy jaar Macky Sall guddi ñu toll nii. gis nga maletu xaalis yi muy muy muy tibb nii di ko jox nit ñi di di di nax nit ñi loolu masul yóbbu Sénégal fenn loolu masul leen dimbali si lenn. Bienvenue dans la page des activistes sénégalais TV officielle. Veuillez vous abonner s'il vous plaît et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Le live, n'oubliez pas de le partager s'il vous plaît et appuyez sur le cœur. Merci beaucoup. Si l'un de leen dimbali soxlaam lay jaamu da leen di jënd jaamu soxlaam bis bu soxlaam fajoo mu kajji leen jikkoy kooni la yor day loqati bob, day dagg Bob, bi loqati ñam yi lekk ka football xott bi après da leen di football. kon maletu xaalis yi ni amna na feneen fu mu gënoon jekk defu ko fa lan moo tax mu leen koy tour pour uniquement ngeen voter ko kon ngeen xam ni yéen am na loo xam ne nag ku ko nangu ku ko nangu yaa ko yaa ko bëgg nangu mag du nax boppam kuy sàq mi te yooyu say ngaam ngay nax bu ñu nax suñu bopp dañu nekk ci tournante bu décessive amatul luñ fiy jiiñ nit parce que mbir mi mi ngi suñuy loxo ñooy tànn ñooy voter léegi nag fii la ñuy xamee nag comme que ji ñoon nañ ko député léegi nag ñun ñoo ñuy déglu ba xam ñun nan la ñuy def ak député yi affaire bi dafa simple. da seetli léegi ci ñun la des nag ay góor jigéen lañ wala duñu ay góor jigéen ci ñun la des sénégalais yi 67 pour cent de jeunes nee naa leen paa yi réew mi bu yàqoo paa yi ñooy caga yi réew mi ñun signé wuñu ay contrat ñun. yoruñu ay dogal ñun yoruñu mbolo réew mi li fi dugg te bon yépp te ñu d'accord ko ñun ñëpp ay xale dugaluñ ko fi parce que ñun duñu protocole mënuñoo protocole xamuñu nu ñuy protocole réew mi dama leen wax yàgg wax ne bënd yi paa la paa joge ci ak lan maire yi nga xam ne ñooy ba pare continuer di def seeni mbodin parce que réew mi développement yu njurum xale moo fi ne développement wu jabar ak jur añ beeco ubbil mbalka jai, xalangu ci kawlal bi pay loolu lañ fi nek ak wëri seen jabaro morom yi de développement bi yépp njur mu metti la yéeg wacc yéeg wacc ki ki kala ki ki kala ki ki kala lepp pay la jur wacc bu rew mi tassé nak ñu né boy yi dañoo rew bu ñu kaas suñu droit ñu né boy yi dañoo rew lan la boy yi wax ba ñu né pay yi boy yi dañoo rew li ñepp bok ñepp jot ci dañu bokk ci gétt gi wara naan ci meew mi bàyyi ne du ci dal ngol ngol taxaw fele ne a ah, dëkk bi yàqu na dëkk bi yàqu na ñan ñoy yàq dëkk bi ñan ñoy signé décret yi ñan ñoy protocole ñan ñoy dugal ak a ñan ñoy yor mbooloo ñan ñoy signé contrat yi ñan ñoo fi dugal góor jigéen a ah, acte contre nature ñan la du xale xale yi la dëkk bi kañ bu yàqoo mag ko yàq yi taxaw lànk ne duñ ko nangu comme ay mag yu ñàkk jom lañ fi fekk jur doxan oto bu rafet kër gu rafet takk ëpp ku ëppale jeeg ku gën a baax la lupp jeeg añ rek yéeg ak wàcc rek la paa yi jàng développement bi loolu la construction yéeg wàcc développement njur rek bu tasee nag ñu song ñu ñun buñ leen ne dañoo bëgg a càpp suñu mburu ci soos mi dañoo bëgg a namp ci wenn yi dañoo bokk ci gétt gi war a naan ci meew mi paa yi tam ñu dëmm waaye am ngeen problème gis nga moment bii c'est le moment de coow mokkal nañ ay nañ li ngeen di wax li ngeen def ba am xaalis fii kenn defaru puso de wax rek ngeen daan def kuy lekk waxa la tax di lekk ku namp ci meew mi da ngaa wax a wax wax ba ca bañ na ngang léegi nag ñun ñëpp wax rek wax rek parce que mokkal nañ du ngeen ñu use lu leer lañ leen wax nag nañ dem jëli président kii bu koy déglu te de ton gën a am jot wax li nga mebet ci réew mi loolu nan nga dundee période boobu ak sanction tekki leen lunettes yi ubbi nopp yi ubbi xel yi xippi bët yi te firi bakkan yi ŋaan gémmiñ yi yi wax dina leer président mooy wax positif bu sénégalais yi def yóbbu la ci assemblée nationale waaye di sant yàlla euh, man dama di croyant boroom gëm-gëm la ci diine gi ma bokk muy islaam te dama jàpp ni nit ki dafay topp destin am Eh, Lima andiwan andi won administration du Macky Sall du décret du lenen gannaaw sama ndimbalu jur ak yalla mi ko nangu sama njàng ak sama effort personnel Lima fa génne nak volonté Macky Sall la mom dong eh, mais dama japp ni mom big bi mu jëlone di signer sax du mom mo signer yalla mo dam mon sama yoon da war a jaar fofu par rapport ak peut-être fi fi ma bëgg yegg kon eh, nous avons def fixation ci administration nekk nañ ci fukki at ak juróom ma di yépp na lu ñu ci seede ci niñ fa loolu am solo mooy nit foo bàyyeekoo rek mun fa am seede bu rafet ndax bëri na ñoo xam ne suñu bàyyeekoo woon foofa gëw ma nit nañu am rafet wala sax tey yoon leen di nañ avec dignité parce que euh, sénégalais yu bëri foogoon nañ ni sax ñenn dañ ñoo génne administration ñu mer ngembu daal di samp parti politique ma fàttali ni ñun 2014 la ñu créé parti politique janvier 2014 août 2016 dañ ma génne administration donc sama action politique maag ñi ma àndal ñu teg ko ci dénoncer li nga xam ne njuuj ñaaj la ak yàq ak euh, sëlëm askan wi ci nëbbu leen lii dëgg looloo andi merum Macky Sall ba mu ne tey mu génne ma administration te bi mu koy defit lim wax ni motax mom ci bopam xamna ni du deug li ko tax di tax mu def ko moy comme mom ni mu jappé gouvernance yëpp moy fayanto ak def lu metti nit ñi ku andul ak mom rek mu fexé mu def nu mu la défé lu metti tay su doon amna pexé pour dugal ma kasso kasso la may yobbu waye xamna ni aduna du dox ba mën ko mu né won kon comme fonctionnaire la suñ ko xagné salaire dina tal lenen dul nek fi di ma critiquer waye fofu la juumee ndax peut-être mom gis-gisam mo gatté ak ñak xam yalla ak pexem ndax nit moy nek ci ay pexem fogg ni yor na pouvoir fekk yorul dara buñ ci génné it wala président wax na ba nopi bi dama koy andil tegal ko nervi jami, jami yi jaam yu bon yi traître yi solkatu t-shirt yi mbaxane APR yi ak ñi nga xam ne ñooy jàppale APR muy sëriñ muy kilifa diiné muy tarixa qui était derrière Blaise Compaoré. Hein, Idriss Déby, c'est la France et les Occidentaux qui sont derrière lui. Donc partout où il y a quelqu'un qui dit non, c'est la, même, la France même qui, a, qui était derrière Blaise Compaoré. Hein, Idriss Déby, c'est la France et les Occidentaux qui sont derrière lui. Donc partout où il y a quelqu'un qui dit non aux Occidentaux, ne piez pas mes richesses, ne piez pas nos richesses, ne piez pas notre pétrole, faisons un deal, travaillons ensemble, collaborons. Nous, ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des colonisés. L'ère de la colonisation est terminée. Quand tu le dis, eh bien, toi, tu es fini. Maintenant, ce sont les jeunes Africains, les Africains matures. Voilà. pour les nervis pour qu'elle comprendre les ñuy 200 lan francs du 000, cent 000, du terres. mille du terrain Les gens du terrain booru géej li ñëpp pas ñëpp jot am ma may leen xoo bi te gasaguñ ko kii buñ ko gasee fuñ jëm da ngay seet li gis nga li ñu am yëpp de non ñi xaar ñi xaar ñi du ma tëjee nii live waaye te indi lu ma leen aket mu dal si kaw paa rek parce que lii yëpp responsabilité paa la moo tax ñu may ne waxal ci sëriñ diw waxal ci imam diw waxal ci imam bi man leen duma ci wax réew mi. képp ku fi woote njullite te waxoo ci lii nga xam ne moom la askan wi war a dunde sa jullite des na ñëpp nag laa waxal xali loo woog ak keneen ak keneen ak keneen fii ku waxul ci lii nga xam ne moom la askan wi di dunde rek falaa lay teg man fa laa dese dese nga ñun dañu war a dund nag xëy da ngay seet lii xaaral ma def nii du ma ci boole wax tey. naam bu leen bu leen tooñ. waaye ku leen mbéj na ngeen ko mbéj. ku leen wéq ngeen këdd ko waaw bu amuñu lu ñuy baale. mag mu yaradi ko mu sàcc ak mag muy fen ci yam mag mu fi fen da ngay fen mag mu fi naafeq daa ngi ne la amatuñu lu ñuy may kenn. ay cosaan ak i gone bu njëkk li yëg loolu dafa jeex ci loolu ngeen ñu naxee ba toog suñu kaw gone yi toog suñu bopp yi mënuñoo jàng mënuñoo liggéey mënuñoo takk jabar mënuñoo am kër amuñu suuf amuñu oto mënuñoo faju judd sax da ngay judd dee dara ngeen toog fi ngeen toog yéen mag ñi nappaaje jeegi fu jigéen jekkee nappaaje ngeen ko yéen ngeen ko dara fu réew mi nekk xaalis ngeen sàcc ko ngeen toog yor suñu alal Macky Sall di leen ko séddale ngeen toog di ko lekk guddi ak bëccëg gone yi tumuraanke di dee ci kii gone yi tubaranke nekk ci àll bi bés bu nekk nga dégg ñu ne kii juddu na dee ñii ñi ngi jàpp di rendi jeune bi kenn xamuñu fu ñu jëm napp gi géej gi dara amatu ci hôpital yi boo demee dee ndaw ñi mënuñoo dund mënuñoo lekk amuñu fu ñu dëkk ñi ngi dankalikoo ci seen kër bàyyi yéen bàyyi yéen seen doom yi ñoo nekk ci àll seen doom seen doom bi ñoo ñàkk élage taal ngol-ngol nee seen doom yi ngeen jur kenn yaru leen ay doom yi fitna bi xale yi bu ñu nekkee ay nitu fitna ana seen bàyyi ak seen ndey xale yi kenn luxusu leen xale yi kenn indiwu leen xale yi ci sër yi lañu juddoo ak ci tuba yi fi xale yi ci bee suufu beeco yi ak suufu caaya yi ci la xale yi juddoo ana seen baay ak seen ndey jur ay doom ba noppi sànni leen kanaara sax bu juree sàmm ganaar bu bu juree yiir waaye da ngeen di jur di sànni di jur di sànni jur gu bari googu ngeen sànni nag ñoo dem ba dankali koo bari ñoom xale yi taxaw nag comme amu leen fulla ak fayda comme yéen da ngeen jur di sànni du ngeen jur di toppatoo yéen ñi da ngeen di jur rek di tàpp dóori ndikki rek fu ngeen gis jeeg ba ngeen xol la ci suuf bécco jop jur di sanni du ngeen toppatoo du ngeen jangal du ngeen outal liggéey du ngeen outal xey seen yon neeku ci dagale ay jabar dagale ay doom yu bari di génn kër ku nekk ko bu ngeen xëyee saaf ciep xalé yi buñ demee ba wala ngeen sos kër war tak jabar wala mom seen bop dara jànguñu amuñu xam-xam amuñu ijaas liggéey amu ci rew mi yeen paay ngeen tok di pousse seen pion mu dox ànd ak Macky Sall bu di ngeen chompal ngeen di dund yi jóg taxaw diko wax ngeen bëgg leen tam dem xalé yi dootuñu leen man dara seen tank suñu tank ba ñu ñu ci rayante ak yeen ba ngeen dem bar sàq waaye da ngeen ñu bàyyi réew mi bu soobee yàlla réew mi réewum xale yi réew mi gone yi ñoo ko moom na ko gone yi foqati ci paa yi lu mu laaj nañ ko teg teg ko ci ko table ji amuñu lu ñuy may kenn amuñu lu ñuy amuñu ci benn complexe amuñu luñ ci bañ amuñu luñ ci ragal nan ñu tam dëmm nañ ñu xale yi fitna dañu ndax fitna fitna xam nga luy indi fitna ak naafeq fu mu am lu ñëpp bokk bu ko amee ñu ko aaki moom fitna day judd fitna ji nekk ci réew mi ngeen na am na fi waaw ngeen na gën yee ko téye fitna boobu ci mag ñi la jóge mag ñi ñoo téye alalu réew mi ba koo xañ gone yi gone yi na du fi am séddoo ku nekk jot sa wàll ku nekk wekk sa morom bu ko amul gone dañuy génn ndax ñoo man mag ñi ñoo ëpp doole mag ñi ñoo ëpp kàttan ëpp leenu fit gën na leen nekk ndaw mag ñëpp la ñuy jàpp mbankaan nangu réew mi téye ndax ñun ñooy mag xam nga leen fi doon wax ay nee naa leen booy yi paa boo ci gis moo am ñeent jabar jabar yi kenn ku nekk jur na juróomi doom ñeent plus juróom ñeenti jabar jabar yi ku nekk juróomi doom vingt personnes taxaw na jóg leen ñu wutali paa yi sàcc seen carte yi xotti droga leen jox leen soow nandal leen ku am seen man sama basa ngi ku am seen yeewal sa bàyyi bu mu dëgër yeewal sa ndey bu mu dëgër ci yeew ci taatu garab gi parce que li ñu naqari ñoom ñoo ñu ko teg ci li ñu naqari la ñuy dox saay bu ñu leen ne état day nangam ñu jël saaku ceeb saay bu ñu leen ne état day nangam ñu jël butéelu diwlin saay bu ñu leen ne day nangam ñu jël kasket saay bu ñu leen ne état day nangam ñu jël vax di ñu toroxal di dox ci li ñuy toroxal rek ñu ngi nii amuñu xëy buñ xëyee song góoj gi dee ñu jooy seen jooy yi fayul safara fayul safara doonul déeg bu mën a am ay jën yu ñu napp jooy ñu la ñuy def jooy boo xam ne ay waay sama comme kama waroon a commercer kama waroon a commercer dee na bo xefe bo dee sax ñu commerce ñu ñu commerce sa kaw bo dee ñu commerce sa kaw jog leen nag élection lañ dëgmal député yi élection député gis nga bu ñu xasee ba rëcc ay référendum ngeen di am référendum ngeen di am jog leen kër gu ne pa bu takk ñent jabar jur nga juróomi doom juróom fois fois quatre égal vingt ñu jog dëgmal leen demanteeg ñoom ba mu saf sap parce que dëmm yi ñoom la paa yi maire yi mère yi léegi dama leen ciy boole xam nga boole wuma ma leen ci woon mais léegi dama leen ciy boole parce que su xool naa ba xam ne paa yi mënuñu fee nekk développement lupp jeeg développement beeco développement ëñ développement yéeg développement kiic kiic lal ba pare nag mère yi doon ay complice ne duñ wax te duñ ñu jàppale ñoom wax si rek lañ ciy am ak seen i mbootaay ñuy bëgg a dee nag ñuy dox ci lu ñu naqari te kenn du leen ko wax nag moment bii da ngeen di dégg de parce que seetaan bee yàgg dañu bokk ci gétt gi te war a naan ci meew mi nag comme lank ngeen ñu naan ci meew mi nag ngaam yi wow na dañ leen di buusu rek comme jaan comme jaan joo ruh ci taat rek buusu rek aca imam continue boo si nag bu leen yabo ngeen job parce que seen jamono la de bëgg ngeen tabax bàyyi far, duñ tabax jeeg lañuy ñuy dañuy ma dañuy dañuy nappaaje lupp jeeg tabax ñom ñu ne lupp jeeg lañuy ñuy nappaaje tabax ci ay gune bu ngeen juddoo duñ leen yóbbu fen duñ leen dimbali ci leen ñom dal ñoo nag ñun ba kérok bàmmeel ya buñ dee sax boo moytu am na ci paa yoo xam ne bala ñoo dee la lekk seen miraas bala ñuy dee la ñuy pooju ginaar seen miraas seen adduna yëpp dañ koy pooj boo demee ca armée genn wàllu paa ay pooja leen rey yeneen genn wàll gi ay saafaraa leen rey yeneen genn wàll gi daw nañu dépense ba tas dem nañ alaxira miraas gi dañ koy yóbbaale te ngay seetli te kenn ko wax. majorité bi ñu wax soixante dix pour cent ci réew mi am amuñu quarante ans lu mat vingt pour cent quinze pour cent ñoo fi nekk di ay màggat yu xubidaas tojuñu fenn téye alalu réew mi teg ñu ay impôt dund bi cher jën amul yàpp amul ceeb bi cher diw bi nit ñi amuñu ñu dëkk suuf sépp ñu téye ko aaki moo ko fu jigéen nekk ñu fekk ko daañu fexe ba loqati ko tëree ko ci seen kaw lali nappaaje bu ñu noppee ne gone yi dañoo reew gone yi amuñu yar gone yi lii gone yi laa na gone yi lànk jóg taxaw fàq seen yet laa wax na gone yëpp fàq seen yet ngol ngol ak mol ngol ci yëpp toog ci loolu dañ la ko sant koppar yañ la jox bu jóge ci palais bi jaar ci El Hadj Ndiaye nga xam ne yàqu dara Ousmane Sonko ak diaboliser que moom ngeen jëg léegi mooy seen campagne boo demee TFM loola fa am nga dem ca Bougane foo ci dem léegi seen wax yëpp may mën a nduur fay ñoom ñëpp seen média yëpp génn nañ ñëpp ñëpp ay caga lañu ñëpp ay góor jigéen lañu réew mi wax fen guddi Tange Tandian fen guddeeg bëccëg leeral point net fen guddeeg bëccëg TFM fen guddeeg bëccëg Bougane fen guddeeg bëccëg El Hadj Ndiaye de fen guddeeg bëccëg loolu kenn du ci wax de seen fen yi nekk ci réew mi ak diabolisation di tam dëmm gone yi di tam dëmm Ousmane Sonko ko gone yi gis loo xam ne ñoom mag ñi gisuñu ko mooy moom sa bopp moom sa réew moom sa koom-koom tënk ko ci mbuumu jaam gi ñu tubaab bi teg tegoon ko suñu maam yi tegoon ko Serigne Touba tegoon ko El Hadj Malick tegoon ko El Hadj Omar Foutiyou tegoon ko Thierno Souleymane Bal tegoon ko Maba Diakhou Ba tegoon ko Amadou Cheikhou tegoon ko tegoon ko dem ca daara yi lakk ko dem ci ay village lakk ko mbuumu jaam googu la Faidherbe ba ñoom ñëpp tegoon suñu mbaam yi moom lañ fi teg ba léegi Emmanuel Macron ànd koog ñenn sëriñ si ànd kook Macky Sall ànd kook ngol-ngol El Hadj Ndiaye Youssou Ndour gone yi jóg ne mbuum googu lañu bëgg a dagg ñun dañoo bëgg dignité moom suñu bopp moom suñu bopp moom suñu réew moom suñu pétrole suñu gaz suñu koom-koom moom la gone yi di yuuxu ñu ne gone yi dañoo réew ndok bu leen ci am complexe bu leen bañ ku leen tam dëmm na ngeen taxaw temm fàq seen yat jël seen bakkan bi teg ko ci ko taabal ci balaa gone dee mag dina dee dee mag la gën a yomb ko ne buñ ci bañ bu buñ ci bañ dee révolution la ñu taxawal pour moom réew mi fu mu yem neex bu leen ci am benn complexe laaj saal ngol ngol du nitu dara du nitu dara ay ñu tekkiwul daraa ko yónni ay El Hadj ki Macky Sall ak ay nit yu dul nitu dara ay Youssou Ndour nga xam ne seen tubéy la ca nekk moo ci dara ñoo fi nekk bëgg fee nekk di dund daa iman di nekk ci réew mi ñu aakimoo ko xañ ko gone yi am réew ku fi mas a nekk mag mas nga fee nekk gone gone gu fi nekk gone da nga mas a nekk mag réew day dox kenn ku ci nekk sa jamono bu ñëwee nga dox ko bu weesoo nga xam ne weesu na ñun ñi tey ji ay gone lañu bu ëllëgee dañuy nekk mag suñu doom yi ñëw nekk ay gone ñu war leen a xajal am réew noonu lay doxee nekk bu sa jamono ñëwee nga dox ko bu weesoo nga ne weesu na te bàyyee place bi gone yi gone yi tamit boo liggéey ñooy ñëw nekk mag bàyyee place bi seen i doom Sénégal rek mooy réew moo xam ne mag ñi duñu bàyyee place yi benn gone dañuy toog ci place bi biñu nekkee gone nekk ci place bi ba màggat nekk ci place bi ba xubidaas gone yi njur màgg ba fekk si leen ci place bi wala puus bàyyi gone yi toog ñu lànk ne gone yi duñu toog occupé néeg bi occupé salle bi occupé ëtt bi bàyyi gone yi ci mbedd mi ñuy taxawàllu ko naan. occupé waale boolu ceeb bi boolu ceeb bi sax ndawal ca digg ba gune yi duñ dem téye sa loxo dañoo tiit suñu paa yi tiit fuqal leen ci ñañati soxor bon. ataay ñoom mag ñi nekk ci kaw néeg bi ci kaw saal bi ci kaw jéeg gi dina paaje ba am cent ans ci kaw jéeg pooju géej bi ba dee doom je ñu miraas waaye duñu bàyyi mukk doom ji mu am liggéey du ñu bàyyi doom ji mu am suuf am këram comme ni ko bàyyi bi amee du ñu bàyyi doom ji mu jàng du ñu bàyyi doom ji li baay bi am doom ji mu moo tax cent famille boo ci jël Sénégal téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukk yee seen doom yi du ñu dem fenn ndax la seen baay amoon sax mënuñu ko am ndax réew mi dañ koo aadawoo cosaanoo ko mag moo war a am mag moo war a xam mag moo war a jëfandikoo mag moo war a jël gone moom dañ koy xañ lépp lépp lépp lépp lépp loolu nag laa bëgg mu dakk damaa bëgg lépp luñ mas a xañ gone yi na ko gone yi foqati mag ñi amuñu njariñ toppatoo wuñu gone yi li ci seen suufu tuba yi la ñuy toppatoo ak li ci becco meer yi ak jigéen ñi lii lii la fi mag ñi nekkee tabaxuñu fi yettuñu fi tabaxuñ fi puso jàngalewuñ fi xamuñu dara mag ñi alal ak nappaaje jeeg lañ fi nekk nañu foqati réew mi tabax ko ñu ndaw ñi ñoo koy tabax nañu foqati réew mi tabax ko la tiitam El Hadj Sall ngol-ngol bam naan réew mi amul jàmm